Sofi Goudiaby Senegal ak and Centrafrique Senegal rouge Centrafrique blanc Sofiatou Goudiaby Kouthia arbitre bi sifflé waat na Sofiatou Goudia bi Sénégal ak ànd bu Centrafrique Sofiatou am na un point mais man un point bi dama ko ragal Sofiatou Goudiaby marqué na un point ànd zéro bu ñu égaliser temps jeex ànd mooy gagné soo fi yatu góorgóorlu nga marqué waat deuxième point Sofia Goudiaby temps ba léegi mu temps ba jeex na Sofiatou Goudiaby gagné na